yaa ngi ci biir Songuanté TV bu leen fàtte di emee abonné ba noppi di activer cloche de notification bi dara dootu la ump ci réew mi ak ci butim réew ak la télé du peuple Songuanté TV. Aquaterra ndox mi wóor te leer. KPay transfert d'argent bi gën a wóor ñoo leen di may li ci yéene kay. bisimila tey la ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ci weer novembre atum deux mille vingt-deux Sud Quotidien ci assemblée nationale la dem ak député yi nga xam ni doon nañu audité njàng mi ak njàngale mi ci personnel bu bari bi ak li nga xamante ni moom mooy abri provisoire yi. ak salte gi nga xam ni école bi salte ne ko loolu moo tax Sud Quotidien ne tey la quatorzième législature audite l'école libération yi yéen a kaay jóge ci école ya dem ci li nga xam ni moom mooy wàllu suuf si rawatina la nga xam ni moo nekk ci Rufisque mu ne la cour d'appel désavoue le conservateur de Rufisque ci titre foncier bi nga xam ni. da nguur gi daf ko doon xëccoo ak benn famille la téeméer yene kay ne famille ñi nga xamante ni ñii ñoom ñooy militaire ya génn àdduna wala bok militaire ya réer mër kenn gisu leen kii di adjudant chef bii di Didier Badji ak sergent bii di Fulbert Sambou seeni njaboot ñoom ñëpp jóg nañu ci biir la téeméer yéen kay ne bugguñu doon magum xamoon naa ko waaye magum waxoon na ko la direct news ne ñi nga xamante ñoom ñooy député yu yeew yi yàkk nañu lu mel ni xame ki nga xam ne moom mooy Mbaye Niang ndax mamay ñaa dafa ne woon dafay porter plainte ki nga xamante ne nii moom mooy seen njiit waaye nag ñoom yóbbu nañ ko ci commission d'enquête parlementaire l'info le journal ne ñoom ñëpp ñu ngi laaj tey interrogation procès ci ñaari way takk yi nga xam ni réer nañu mër kenn gisu leen maire bu tuwaawoon pël ma nga woon ca kanamu yoon waaye nag la ko fa yóbbu woon du dara rek lu dul wàllu témoin ci suuf si nga xam ne dañ ko fay saasaake 24 heures ne ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi war nañoo bàyyi di ñu rusloo ndax booba ak léegi jàppal ma jàpp mbiicoog mbàlla bi mel ni tulle ak màlle suñu gaynde yi tey ñooy jongante ak Qatar bu 13h jotee bés bi le journée ñetti point rek lañ ñuy laaj amul leneen réew mi quotidien ne fan cent 334 mineurs ñoo nekk ci prison bi le soleil suñu jant réew ne suñu gaynde yi à quitte ou double gagné rek mbala ñibbisi alerte quotidien it dikk ak ñun ci militaires yi nga xamante ne nii ñoom ñoo réer mër kenn gisu leen seen njaboot nee nañu bugguñu doon nagum sarax si le vrai journal ne ku am sarax soy digal suñu gaynde yi na nga ko digal tey ndax suñu gaynde yi dañoo war a football ba dugg boîte vocale bàyyi fa message la turbine yéen kaay ne autopsie la ñuy def ci caméra de surveillance yi nga xamante ne nii ñoonu la militaires yi réeree mër kenn gisu leen laas quotidien dikk ak ñun suñu gaynde yi tey ñoom seen avenir mi ngi ci seen loxo critique yéene kaay ne tambu moor enquête quotidien ne gañe wala ñibbisi a dikk ñun ñun suñu gaynde yi bu ñu gañewul dañuy summi seeni crampo l'observateur yene kaay ne fang ci xata mu jóg Aliou Cissé jeu de mots sax la l'observateur yéene kaay dikk dikk ak ñun tey ci ci suba mu ne éviter la catastrophe lii ko dañu dikk ñun ci député yaayu bi nga xamante ne dañu ko audité ba noppi jàpp ko loolu ki ñu ko wax du kenn ku dul jëriñ ji nga xam ni moom la ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi vox populi ne suñu gaynde yi défaite interdite quotidien yi ne à la conquête de l'émirat walfajiri quotidien yi foofu la dikk ak ñun ne bu nu gañewul dañuy ñibbisi te ñibbisi bu gaaw la ñuy ñibbisi ko échos yéen a kaay tuddee ko une finale avant la lettre les lions dos au mur sad yéen a ne suñu gaynde yi dañoo war a gañe ndax dalal xelu kan wi na ñëpp seen xel dal ndax ñu jàpp ni bu fukki di gas fukki di suul panday bari rek waaye payoor du mën a am suñu gaynde ñu leen di ñaanal ndam ndam ndam rek mbokk yi ba suba incha allahu rabbi yaa ngi ci biir Songuanté TV bu leen fàtte di aimer abonné yu ba noppi di activer cloche de notification bi dara dootu la ump ci réew mi ak ci bitim réew ak la télé du peuple Songuanté TV